bisimilah barki borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di ziarat bu wér di ñaanal sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér wér le di ziar suñu jëwriñi suñu magu taalibe sëriñ waa daayira mu xaddumati ñenn ci yéen rek muy daayira bu Louga ñoo ñëw tey nag fas yéene joxe suñu jëf ci liggéey bi mag bi liggéey bu tedd bu sell bi ngeen nekk nii eh, jëf jooju nag ñu ngi ko ànd ak mboolem ñu dëkk Louga eh, di leen jot nag nuyoo sëriñ Mahmoudane Mbacke ci jëf jooju nga xam ne démb rek njabootam ngi nekk ci Al Azhar bi di njabootu sëriñ Mourtada Mbacke ñëw fi démb eh, ndogoo fi ak taxawaay bu bu bu rëy boobu nga xam ne taxaw ngeen ko. ba bin fi bi nu jógee fii dañoo jubal ci sëñ bi di ko di ko di ko di ko di fesal seen mbégte foofu loolu tamit ñu ngi ñaan suñu borom defal leen ci tawfeex ak tey sëriñ yàggal nañ fi lool te ngeen ànd ak wér wérle daayira mu xaddumatu xidma mi nga xam ne moo féetee Louga di section Louga ñu ngi santaat nag di santaat bu wér a wér a wér li nga xam ne dajale nañ ko mu jëm ci wàllu ndog mu toll ci téeméeri junni di ñaan. ku tedd ki defal ñu ko am nañu xol bi ba ci téeméeri milliards suñ ko amoon tey fii lañ koy indi ndax amuñu fenn fudul fii waaye ñu ngi santaat bu baax it ci ni ngeen ñu tàggatee ba teg ñu ci siraatal mustaxima di rek ñu jaxasoo ak yéen dañoo gën a xam ni ñuy liggéeyee Seexul Xadim euh, looloo ñu may fit euh, fii nga xam ne moom mooy jumaa yërmande bii ku tedd ki Seexul Xadim jógee Murtani foofu la jaar foofu moom moo ko tuddee yërmande barab boobu kër sëñ Moustapha Bassiroo nga fa kër maam Thierno nga fa eh, muy penc mu yaatoo yaatu yaatu daayira bii fa la féete fa lañ ko jox mu def saison nekk fa waaye jumaa ja ñu fay jàng fulku dafa waajal ay ndogu waaye lépp fii lañ ko royee waaw diiru ñu jaxas ak yéen daal xam nañ ne yëg nañ ni ñuy liggéeyal Seexul Xadim waaye gën nañoo bëgg liggéeyal Seexul Xadim waaye gën nañu am fitu liggéeyal Seexul Xadim sant nañ ci bu baax a baax a baax mbégte la ñuy waxee eh, taxawaay bii nga xam ne dangeen jullit yëpp euh, mu doon mbégte loo xamante ni euh, àdduna bépp euh, ñoo ñoo koy waxtaanee ñun ñi nga xam bii xëy tey dañ fay ñëw rek gis na ne liggéey bi waxuma la jëf ji fi ñu waaye waaye jëmmi lal lal lal lal napp yi waaye raxas kaas yi defar bisaab bi ak gis ci jëm rek loolu la ca nekk ci liggéey ndekete kenn xamul nu mu toll secteur ba léegi mun naa ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci nekk ba nii nii nii kon am na leneen lu ci laxasu ci passif bu kawe kawe kawe kawe bu nekk ci biir kon loolu loolu loolu ku ci ku ñëwul fii rek euh, du ko xam waaye ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax a baax bi ñu suñu borom boole ak yéen waaye ñu ngi santaat bu baax a baax a baax a baax ci mbokk yi nga xam ne dañuy jóge ñëw fi waaye ci taxawaay bi li leen di taxaw euh, bëgg na lool di wax ne mboolem section yi nga xam ne nag ñoo ànd ak ñoom ndax luga dafa nekk Louga waaye dafa am ñoo xam ne dañoo dëkk ci dëkk yi wër Louga ñoom ñëpp ñu àndandoo ci liggéey bi euh, am ci passif lool nag ñoo dajale jëf ji waaye addiya dañ ko sañ te xeeb waaye kon dañ naan ñun xeeb nañ ko lool fii ba 500 milliards ndax amuñu bis bu ñuy def amuñu lu ñuy waajal amuñu leneen ñun suñu yitte yëpp fii la suñu yitte yëpp jumaay Tuubaa la ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci ci la ñuy xalaat suñu waxtaan ak lépp ci la nekk sant nañ baax jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di yu baax di de jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi Cheikh Sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi la tuural ko bu li mu yéene liggéey Sëriñ Tuubaa mu def ko te ànd kook ñun di nuyu ci turu day eh, daayira Muxaddamatul Xidma ci sëriñ Afiya bu sa imaam nekk ci bopp ba ci kilifa yi nekk ci jataay bi di kilifa yi ngànk liggéey bi ñoom ñëpp dekk ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu ci seeni tur di leen di leen fay ci seeni tur di leen nuyu yéen bu jumaay Tuubaa ci yàlla dogal ngeen bokk ñi féete Louga ak li ko wër ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet ak seen pës pësteef ak seen neex a àndal liggéey loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm mu mel ne bi koor gi jub rek ñëwoon ngeen ñëw boo xam ne sax bu ngeen ci woon rek mu doy ñëwoon ngeen am di fi indi fi jumtukaay muy pour bi doon lu am solo loolu jëf ju la joo xam ne Pastef ak xool li bar bii teewoo nga ndox jëm ci moo waral loolu kon nag ñu ngi leen di sant ci daayira bi di leen gërëm bu baax ci seen Pastef di leen xamal ne tamit da ngeen a gën sunu xel gën a dëgëral sunu yaakaar ndax waxtu wu nekk da ngeen di bàyyi ko foofu di ñëw fii. waaye kenn ku ci yéen mosu fee ñëw muy màggal muy xew-xew lu mën di doon bañ xàjji leen ci lu ngeen war a def te defu leen ko war a ngeen def lu ngeen war a def loolu nag ak cant da cee war loolu mooy tegtale ne yéen xam ngeen li ngeen bëgg xam ngeen li ngeen di wut xam ngeen li ngeen di wër tamit muy Serigne tubaa te xam ngeen fi ngeen ko wute tamit mooy fii ku gën a jege di jumaay tubaa kon nag ñu ngi leen di sant turu daayira bi di leen gërëm bu baax di siyaare bu baax. sëriñ Mahmoudan moom si Cheikh Mahmoudou Mourtada ci yaatalam ci yéeneem ak jëfam ak bëgg lu baaxam ba lépp loo xam ne lu baax la ku ko yëkkati ku nekk mu ta mu tàbbal loxoom kon ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaare di siyaare mbokk Louga yëpp kilifa diine yoo fa nekk yëpp ci gox ba ñu ngi leen di jotale ay nuyoo ak cant ak ngërëm ci daayira Moukhaddamatoul Khidma di leen gën a dénkaan ñoom kilifa yooyee ak ña fa nekk ñëpp njabootu Moukhaddamatoul Khidma gii fa nekk di xamal ne daayira bi lañ fi nekkal jumaay Tuubaa lañ fa nekkal képp koo xam ne ñëw nga ba yes ñoom nanga nga leen yombalal lépp loo xam ne loo leen war a mën yombalal la tam doon lu leen di jariñ te xam ne boo ko defee jumaa ji nga ko defal boo leen ci taxawoo tamit jumaa ji nga ko taxawal ndax nit leen la ñoo xam ne ñu am jom lañ ñu am ak bëgg sëriñ bi ñu am pësteef lañ ba lépp loo xam ne yéene nañ ko ngir jëm ci sëriñ bi ñu ngi bu lu rëy lay doon lu rafet lay doon nag. cépp koo xamante ne nekk nga ci Louga wala nga nekk ci li wër Louga lépp bul neg waa ñii ñëw di la soññ ngir nga ànd ñoom liggéey bi soo seetaanee image wala nga dégg ko rek na nga bàyyi la nga doon def ñëw jokkoo ñoom seet wet gi nga ci mën a jàpp nga jàpp ci ndax liggéey bi Serigne Touba boo xam ne ñëpp ko bokk te mu doon liggéey boo xam ne ñëpp ci war a jàpp tamit ndax day liggéey boo xam ne dafa rëy te dafa yaatu ndax dëgg la koor ak màggal yi day li nga xam ne moo gën a ràññiku ci liggéey bi waaye liggéey bi bis bu set la at ci at mi bu jàllee tamit ñi yoru ñii ñi ngi continuwaat liggéey bi kon na day liggéey boo xam ne wóote laal suuf ndax liggéey bu tul nii duñ ko liggéey ba noppi te ni mënta ñàkk let wet gu ci nekk ñu ko cay toppatoo te wet yu nekk ñu ko cay toppatoo weesu daayira bi daayira bi ci toppatoo lu war a set lu war a leer ñoo koy set lu war a féexal nit ñoo ko fay def lu war a am xet gu neex ñoo ko fay def lu ca am ci war ma tamit wala wala wala sakk lu mën di doon daayira bi toppatoo loolu kon nag daayira bi am na yaatu gu mu bëgg ak fu mu bëgg eggale liggéey bi sax foo xam ne daa jëru wax waaye bu ci eggee képp ku nekk jumaa ji da nga yëg taxaw na ngir jàppale ci liggéey bi kon nag lii ngeen ñëw ngir bis ñii ñëw ngir andi seen addiye ci ndog yi ñi ngi leen koy defal ci liggéey bi di ñaan yàlla sunu borom nangul leen ko te fulal leen ko te barkeelal leen ko ba bu ngeen jógatee di laajati li ngeen am lu ne ngeen am lu ëpp loolu ci bàkki Seexul Xadim te ma ànd ak Pastef ak nangu ak jëf ju Sëriñ Tuubaa nangu ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax seen pas-pas bi ngeen di doxee daayira bi rek dafa doyoon sëkk te waxtu nekk yéen a ngi koy wane te lenn loo xam ne muy luy lëjlële wala yu sanle du ngeen ko fi def kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla sur borom defal ñu njëggal defal ñu tawféex suñu njaboot yi jiitu ji yàlla yërëm leen te sàmm leen ñii ci wéradi yàlla sàmm leen ba ñu wér ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk tamit yàlla may leen kàttan may leen xéewal yu bari te bu leen mayee xéewal yi kàttan gi kàttan gi ak xéewal yi yëpp yàlla leen may xol bu ñu ko joxe Sëriñ tubaa ndax soxna yi dañu doon ñoo xam bépp mbir bu ñu dugg dañ cee jox ba mu jeex ba mu jeex tàkk ku ne xam na ne lislaam ba ci yoonu suñ tubaab wi jigéen mu si dox ginnaaw kon nag loolee ba tey day mel ni yéen soxna yi yéen a ngi koy dëgëral ba tey bu ngeen demee kenn ku ci nekk na nga fexe ba sa morom ma nga xam ne bu ko liggéey bi nga fexe ba wommat ko ba ñëw toog ci liggéey bi ndax lu baax kat du doy képp koo xam ne gis nga ko mu jëm si mu doon mu am lu baax war ngaa fexe ba koo gis ku nekk mu bokk ci ndax liggéey la boo xam ne boo ko liggéeyee ki lay fa ki lay fay ak fayam du yomal xiyam dong du fii lay tàmbali di la teral di far di terak say njaboot bay la abat kon nag liggéey bu mel noonu ku ko am ku ne koo xam wala koy dégg wala koo koo mën a dajal war ngaa fex ba dugg ci liggéey bi ak nu mu ci mën duggee te xam ne liggéey bi moom attana lépp nag ku ci dugg yitte joo am fas ko ci àtt na lépp pas-pas bi rek moo ci am solo te yéen yàlla defal na leen pas-pas wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh